xale yi Facebook xale Instagram xale Snap xale Twitter tubaarkàlla xale maa la bëgg xale maa la raw xale fan si loo dul doyal sama rakk ji. macha allah Dieba encore une fois ñu ngi lay dalal ci plateau bi mais ma dama bëgg a xam musique bi nan la duggee ci yow.

waaw boog man yi ngay def kaset yi quoi tu vois. mooy boog man da nga fàtte ne temps yi na xamee ne temps yu yàgg yi ñu daan joxe mooy yu mag yi rëy wët maan. waaw boog maan yu mag yi la rek waaw yu ñuy def kaset yi. mooy kaset mhm. yu ñuy yu ñuy rembobiné quoi. yooyu noonu après. boobu noonu eh, de sa fet sama tata yi sama yaay yi ñoom dañoo dañu dañ doon bëgg musique dañ doon déglu ay Fatou Lawbe ay Youssou Ndour ay Baba Maal. Mhm. et euh, man mën naa ne man maa doon gérer rajo bi et tout. Mhm. sam papa bu xëyee rek man maa ñëw toog ci ci ci ci ci wetu rajo bi. Mhm. xam nga tout le temps di déglu musique tout le temps tout le temps et après au fur du temps tey amour boobu noonu di am da ngay toog say toog say xarit sax ne mais Djiba woyal. Mhm. woyal dara après nga nga nga nga benn sound Baaba Maal ou bien benn sound Youssou Ndour ñu naan da nga mën musique da nga mën musique. et après tey nga ngay dem ngay sentir kat man mii kat. am na lu nekk ci man quoi tu vois nga ne pourquoi pas du ma ko exploiter mhm. xam nga de ce fait ngay commencé di bindantu di bindantu di bindantu boo bindantoo yàgg sa gars yi ngeen toog xam nga la booy ku woy de maa si yaa ko woy eh, nice boy mën nga mhm. ngay jàng aussi ci fosco yi xam nga nga soob dem jël micro woy xam nga au fil du temps noonu noonu mën naa ne musique bi noonu la ñu la ñu la ñu toppee ba tey mais succès bi na bi nga xam ne macha moom nga am ni instant bi ci réseaux sociaux yi partout yow euh, noo koy dunde oui à la légère euh, tey tey tey mën naa ne rëyul neewul extraordinaire tey mën naa ne tey lii lu lu ndaw laa ko mën a jàppee lu ndaw la loo xamante ne tey jibaa mu ngi koy liggéey mhm. juste lu ndaw la ak benn compati boo xamante ne tey bu ñu koy may sénégalais yi la tu donc lu mhm. ndaw la mën naa ne lu gën a ngande mu ngi ñëw lu gën a ngande tey Sénégal dañu dañu dañu dañu soxla tey tey des des yoo xam ne tey dinañ porter le flambeau. effectivement tey yóbbu musique bi waxuma sax Sénégal gars yi ñu ngi koy def waxuma Sénégal mais tey yóbbu musique bi feneen beneen dimension. ba tey fu ñu ne tey fu ñu nee Afrique ou bien ñu ne mu ci monde bi rek ñu ne Sénégal y' a un musicien là-bas. Mm-hmm. ou bien y' a un boy là-bas tey ñun mën naa ne ak sama structure ak ñu may liggéeyal. Mm-hmm. tey défi boobu suñu défi la. suñu défi la ñu ngi ciy liggéey depuis lors essayer créer benn musique bu bees. Mm-hmm. essayer def benn style bu bees depuis bu ñu koy def aussi tamit regretter wuñ ko. follow gars yi ñu ngi bëggee affaire yi. vidéo yaa ngi dem des millions de vues donc yoon baa ngi noonu. quoi affaire c'est vrai c'est de vues c'est vrai. c'est ça c'est ça Yitma à 4 de vues notre vidéo Jarabi à 3 de vues. tu vois donc que ni loolu noonu tey. nit ñi ñu ngi laaj. mooy mooy yow millions de vues ngay laal 4 millions de vues. oui oui mooy looloo tax ñu dina ko fi non il faut nga jox ma ci bitéeri man ñun xamante nañu noo bokk yi fii abal abal abal non mais liggéey la rek xam nga liggéey la rek affaire moom tey ku liggéey da fayeeku quoi tu vois tamit dañu nekk ci benn génération boo xamante ne tey génération génération tout le temps te la plupart yi ñuy déglu du sa ay sénégalais sax yu nekk Sénégal tey mm, naaje yi mm. xam nga kaana ba ñeneen ak ñeneen la ñuy mm. déglu parce que lu tax loolu noonu tey mën naa gisuñu ko bu baax a baax a baax fii nii vrai gars ñu ngi liggéey nag gars ñu ngi liggéey bu baax a baax mais ba tey gisaguñ ko loolu noonu te tey nous en tant que jeune tey ñu nekk ci bopp jeune yooyu noonu mm-hmm. xam fu ñuy xalaatee xam nu ñuy maay ne mm-hmm. et de ce fait donc ñun waruñu waruñu waruñu waruñu def lu ciw ne waruñu def loo xamante ne tey tey day day day du yéeme quoi tey lu ñu def tey bu ñu tegee benn son Davido ou bien ñu teg son Djiba mais li y a li amul amul c'est très important ah, effectivement li li Djiba wax dafa mhm. nekk lu am solo loo xam ne mhm. li ma jàngat ci waxi xale bi mooy xam na li xew mhm, te Serigne Moussa Ka bu mag bi daan way Ahmadou borom jaam bi danaa wax naan ku xamul li xew doo xew mhm. te it maa ngi koy tooñ naan ko jox ma ci biteel yi bayra bi la waaye lii du bayra lii du biteel lii xam nga lan la mhm. yeewu tey sangoo fukki biteel ak ñaar te yeewu woo loo def du saf nit billaahi ba sangoo dara te yeewu loo def mu neex nii dëgg la on est au vingt-et-unième siècle on est au monde des images xale bi yeewu na xam ni mhm. image dox na dox goo xam ne fii mu ne pour nga mën a véhiculer parce que tey il y a vingt ginnaaw sunu ñoom Papa Omar Thione Mm. pour ñu siiwal dara da daan métti ci ñoom. parce que boobu benn télé fi noonu muy RTS amul mm. internet. amul Instagram amul Twitter amul Telegram amul Snap amul Facebook. mais tey boo nekkee naan te man am talent. Mm-hmm. ni xale bi tubarkalla mm-hmm. macha allah yàlla bu la ca topp. mais pour nit ñi bëgg la. Mm-hmm. nga percer mais day yomb. parce que xam nga lu tax. jumtukaay yaa ngi fi. télévision yaa ngi fi site internet yaa ngi fi. ah application yi plateforme réseaux sociaux yaa ngi fi. loolu nag nga naan moo tax nga xuus bay si fi nga bul teggi sa tànk bul gestu foncel fi nga ko teg a baax moo lu fi indi ah et eh, dama lay wax ñun ay ndaanaan lañu ci wàllu télévision <laughs> dootuñu ay gone ci télévision dootuñu ñuy présenté ci télévision <laughs> uh-huh. bay nañ ci sunu waar ba réew mi nangu nag tubarkal la uh-huh. Adja Diallo mii kenn dootu ko nattable uh-huh. Omaro yëngal na rëkk bi dëbb na bii réew dëbb beneen réew <laughs> bu mu la woowee dalal la ça veut dire que la ngay def doy nanu doy na réew mi tey boo doon tatafu ak ñàkk xam foo jëm doo fi toogaa ah. dangaa ne ci lu kon fi nga ko teg fii la wéyalal